Assalamualaikum, dalen leen ak jam xibar bu dul neex ki nga xamne modi di El Malik Ndiaye Tapi bi nak defna ak dabo si dogal bi nga xamne ne katu bi defon nako bu njëkk bi ki di Omar Maham Diallo jëlon si baña jallale ki di El Malik Ndiaye ndungu sin bu ñu sukkandiko si avocat bi di Musasar. sar muy layal ki nga xamne modi El Malik Ndiaye mom nak ma ngi xamar ka nee na cour d'appel am nañu wer ngir mana a àddu si mbir mi bu ñu toppee nag ki nga xam ne mooy sàkku teefu toppekat bi nga di El malik Ndiaye mën na dellu fa nga di Ndungu Sik si ki nga xam di El malik Ndiaye li ñu ko doon toppee mooy fësal xibaar yoo xam ne wérul ak jëf yoo xam dal dina yëngal réew mi.